Sénégalais yi waa parti Synergie pour le développement durable SDD Yokku responsable des partis waa Benno Bokk Yaakaar suñu mbokku presse bi suñuy maa leen di nuyu. comme noo leen ko xamee réew mi mu toll yaakaar naa ne képp ku nga xam ne toog nga bañ a wax rek ah dese ngaa bëgg réew te yonente bi moo ne xubbul watani minal iman bëgg sa réew si jaamu yàlla la bokk loolu waral tey ñu wootee daje bu mel nii waaye tout d'abord su may mooy remercier leen pour seen déplacement wala def mais ñu ngi féliciter également équipe nationale U20 nga xam ne guléet ñu jël Coupe d'Afrique des Nations ci catégorie boobu loolu waral ba Sénégal am ñeenti yoon ndam ci diwaanu Afrique te loolu aussi wax dëgg yàlla ñu ne tombé ay gaf waaye son excellence le président de la république xaw den bëgg également profité si occasion bi pour remercier son excellence le nga xam ne tournée économique am bu tournée économique bu def dans la région de Sédhiou ñun waa région de Sédhiou ñu ngi ko si sant ndaxte jël na lu toll si ñeenti téeméeri milliards yoo xam ne dañ ko prévoir pour ay investissement waaye également président la république Macky Sall mu jot a def dans la région de Sédhiou ak Goulet mu fay am ñëpp ko gis neen hôpital bu nga xam ne inauguré neen ko mu tudd hôpital Amadou Tidiane Ba de waaye pont Massa Sumbi également nga xam ne ñun ñii suñ bëggoon dem Seydou wax dëgg yàlla problème doon dañ doon jànkonteel également centre de formation en foresterie Bounkiling ak yeneen travaux yi nga xam ne lancé woon na ko mais surtout ñun waa département de Goudomp également dañu gërëm son excellence président la république Macky parce que lancé na travaux boucle la boucle di Pakao waaye surtout projet bu am important bu nga xam ne moom nee na dina ko réaliser mooy pont wu Témento Bambali délépp xam ne ne département de Goudomp ñun pratiquement su doon dem ci capitale régionale di Sédhiou dañu obligé jaar traversé beneen région Ziguinchor wala traversé Kolda donc loolu rek war na de Goudomp région de Sédhiou ñëpp votel son excellence le président de la République Macky son excellence le président de la République Macky Sall également lancé na dans le département de Goudomp dans la capitale départementale maanaam ci Goudomp commune waaye également la maison de la jeunesse et de la citoyenneté président Macky Sall président Macky jar jar a la ku jar a la looloo waral ñuy profité ci di gërëm suñuy responsable bu région Seydi nga xam ne son excellence le président de la République Macky Sall mi ñëw le 27 dernier ñëpp gis nañ accueil exceptionnel bu ne population de la région de Sédhiou accueillir nañ ko. Ah c'est l'occasion c'est l'occasion c'est l'occasion c'est l'occasion de féliciter c'est l'occasion de féliciter. membre bu parti synergie pour le développement durable SDD yoonu naataange nga xam ne fii accueil boobu daanaka lu ëpp ñaar fukki junni nit mobilisé nañ ko c'est l'occasion Thank you. waaw mais jé leen ñu ba ñu pare c'est l'occasion ñu remercier ñu féliciter suñu responsable bu département de Goudomp après président ñëw na waaye également den génn su teel ko waaye su l'excellence président la République Macky Sall daf ko jar également ndax bu mu def dans la région de dans le département de Goudomp wax dëgg yàlla bu indépendance amee ba tey kenn mësu koo gis mu ngi koy sant di ko gërëm maintenant su ñëwee si mbirum politique ñëpp gis nañ ne dafa am lu ñuy wax une poignée de leaders politiques non patriotes ñi nga xam ne dañu wooyee seen bopp patriote mais ñu ñuy taxaw taxawee du taxawaayu patriote ñooñu nga xam ne dañu salfaañoo suñuy institution di woo nit ñi si naka sudul noonu di yëkkati jeunesse bi di dóor doom làq doom loolu mooy lan ñoom au moment où ñuy woo doomu jàmbur yi naan génn leen ngeen xeex ak nit ñi am na sax Ousmane Sonko laa bëgg a wax lu mu wax lu gën a grave mooy lan fu ne ku dee sa sa yaay juraat xam nga ne kooku ku respecté jigéen wax dëgg yàlla jaar discours yooyu doo ko ku respecté doomu aadama jaar discours yooyu discours responsable yàlla moo ne wala xam karam naa bani aadama yàlla dafa fonk doomu aadama dee nag yàllaa ko yor kullu nafsin saa xatal mawt mais doo woo nit ñi naan leen dem leen xaru ji dem leen dee loolu kenn du ko nangu te yéen jeunesse bi bañ leen ko. bañ leen ko bu leen kenn bu leen kenn dugal ci noonu te ñun taxaw leen pour faire face képp xam ne yaakaar nga ne réew yaa ko moom yaa ngi nax sa bopp réew mi Sénégal ñëpp benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar wax Sénégal képp fi ñëw xam ne ñun réewum moo tax de Senghor en passant par Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba si de la République Macky ne wax dëgg yàlla opposition ak pouvoir dafa njëkk dafa yàgg am opposition maître Wade ñëpp xam nañ ñoom xam ne ne wax dëgg yàlla opposant bu amoon doole la waaye musul toll si Ousmane Sonko di woote wax dëgg yàlla loolu nag ñun ñu ngi demandé à que état bi mu jël ses responsabilités parce que kenn nit boo ko yor réew di dem naka su dul noonu wax dëgg yàlla président la république ñun luñ koy ñaan sax mooy ko kooku ñan ko jàpp ñu arrêté façon bi muy def dara du si nit ki xanaa da ngay gumb nga bañ a gis wax dëgg yàlla président de la république réalisation yu am solo yu nga xam ne mu ko fi def Sénégal waaye nag fekkee ne yow leneen la tax a jóg réew mi taxulaa jóg waaye say intérêt personnel say désir personnel moo la tax a jóg ba tax day woo ndaw ñi si naka sudul noonu loolu yaakaar naa ne ñëpp war a jóg taxaw Ousmane Sonko damay fàttali ne bés bu muy dem seeti soxna Adji Sarr di marché wu ji guddi tàgguwul tàgguwul tàgguwul kenn tàgguwul ay soxnaam tàgguwul waa Pastef tàgguwul président Macky Sall n'est-ce pas ay mbokkam yaakaar naa ne su leen tàgguwoon ñoo ñu leen ko ne ah Ousmane Sonko comme yow leader nga wax dëgg yàlla guddi na mu nga xaar bu bët set sax nga def waaye comme yooyu yëpp fekk kon na bi bu muy bu bi moom moo taxaw fii wax ne moom am na ay preuve yi nga xam ne leer na nañ buñ ko wooyee mu ne noonu moom preuve yi fàtte na ko Ziguinchor waaye nag may leen ko un mois defe naa Ziguinchor soriwul ku xëyee fii jël avion ñëw di nga am say preuve ñu koy ñaan le 16 jarul bi fi nekk di guddal affaire yi na dem wuy ji fekkee dafa am ay preuve na ko wane Sénégal yëpp gis ko waaye yow amoo preuve amoo dara génn na askan wi ndaw ñi s'il vous plaît génn na ndaw ñi dem leen xeexi dem leen de s'il vous plaît s'il vous plaît s'il seen bakkan loolu yaakaar naa ne loolu yoon te kenn du ko si bay Ousmane Sonko moom dafa jàpp ne Sénégalais yi amul liggéey ba tax moom comme live rek moom mooy liggéeyam huit mun a woote live toog si ay cuisine am sax di live fu mu toll ni laay foo nit ñi amul jot wax dëgg yàlla na bàyyi sénégalais yi ñu liggéey ñu vaquer à leurs occupations moo gën ñun loolu leen koy ñaan su amee preuve nag na ko téye bu mu ko fàttee Ziguinchor bi yoon parce que mi ngi bëgg a yàgg waaw fekkee fàtte na ko Ziguinchor projet bi le 16 suba mun na xëy dem jël vol dem jëli ji ay preuve am mais bu mu ñëwaat fii naan ñu dama fàtte samay euh, preuve Ziguinchor loolu su boobaa dañu xam ne lu muy wax dafa nekk ci ginnaaw dëgg ñu ngi koy wax ne également mars bu nga xam ne woote na ko mooy 14 15 ak 16 mars mars boobu du jàll ndaxte ñun taxaw neen pour faire face réew mi sàddul Sonko wax dëgg yàlla on fera face nga xam ne si état de droit leen nekk te kenn nangu benn citoyen nga ñëw bëgg a lëmbe réew bëgg a nit ñi les honnêtes citoyens ñu mën a vaquer à leurs occupations loolu kenn du ko fi ñi ngi invité état du Sénégal aussi ñu jël seen responsabilité parce que ñoom aussi ñoom ñoo yor wax dëgg yàlla kaaraange citoyen ñoo yor kaaraange réew bi leen jël seen i ba nga xam ne nit ñi ñu mën a dox seen soxla te am benn jafe-jafe mi ngi doon jiñ ne jouru procès weesu dafa am ñu ñuy wax ay nervi yi nga xam ne dañoo woon attaché à sa vie yaakaar naa ne Ousmane Sonko loolu ay wax nga xam ne waxu kasaw kasaw ndaxte Ousmane Sonko ñëpp gis neen à Kër Massar dafa woote publiquement ne président Macky Sall dina jël bakkanam mbaa mu jël bakkanam mais loolu fekkoon ne pays bu normal la nekk fekkoon ne wax dëgg yàlla président de la République Macky Sall amul yërmande Ousmane Sonko keroog warul fanaan kër waaye ku nga xam ne bàyyi nañ ci condition yooyu mu dem tëddi këram yow nga ñëw ne dem nga projet publiquement diggu bëccëg yaa ngi ñibbi sa kër nga bëgg a jiñ nit ñi lu nga xam ne ñëpp xam ne ne loolu ay waxu jaaxal si société civile bi également laa bëgg a ñëw une partie de la société civile parce que du ñëpp ku si mel ni Alioune Tine kooku ñun lu ñu gëm mooy que politicien bu nga xam ne la dafa rango malaanu société civile mais politicien la ñun lu ñu koy ñaan mooy que mu dem sax jënd carte Pastef mu dem milité ji au Pastef parce que yow su Ousmane Sonko waxee naka su dul noonu Sénégalais yëpp gis ko doo si wax dara da ngay toog ne cel suñ ne Ousmane Sonko def na naka suul noonu convoqué neen ko nga jóg taxaw ne non su demee guerre bi am ban guerre civile am na yoo xam ne wax dëgg yàlla waxu jaaxaan te ñu ngi koy ñaan mu seetaat sa position wala réew yi ñun du ñu nangu ñi nga xam ne dem neen ba màgget dem neen ba màgget jël retraite seen àdduna yëpp loolu rek lañ fi nekkeew yow bëgg a fi nekk bëgg kenn du ko na et on fera pas su bëggee politique nag mun na dem jënd carte wala sax su ko neexee mu créé mouvement wala parti politique mu ñëw fii lay fekk ndaw yi ñu politique moom su boobaa xam ne rango maanaam société civile du tee nit ñi wax la dëgg guerre civile kenn ñaanu ko si réew ñëpp gis nañ lu xew ay Rwanda ak feneen donc am na yoo xam ne wax dëgg yàlla Sénégal amul crise amul leneen lu dul ñaari citoyen yi nga xam ne Ousmane Sonko jiñ na ne Mame Mbaye Niang jiñ leen nangam kooku ne def moo ko ñu ne ko indil naa ko si ngeen soxla demal ko indi nga wane ko mu jeex mais di ci naan dem leen manifester dans les quarante six départements loolu wax dëgg yàlla yaakaar naa